بسم الإله إفن الأدار يا الله سفي بقاء به لي فيك يا الله بسم الإله إفن الأدار يا الله سفي البقاء به لي فيك يا الله bismillahi fiinil أدار يا الله سفي بقاء أبيهم لي فيك يا الله يا من له الأمر يا من لا شريك aousubillahi min alsheytaani irajim bismillahi arrahmaani irahim alhamdulilahi rabilalamin wasalatu wasalaamu ala asrafi al anbiyai walmoursalin sayidina wa maolana mouhamadin il makin wa ala alihi wa sahbihi sawi ridwani wa tamkin mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ginnaaw bu ñu sante borom bi subhaanahu wa taala julli ci moustapha sallallahu alayhi wa sallam feddaliwaat sunu yaakaar ci cheikhuna ahmadul xadim noo ngi ñaanal sëriñ Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na ko fi sun boroom gën a yàggal te gën a dolli ak wéram eh, kattanal ko ba naal yi mu naalal lislaam yëpp mu àggale ko te ñu ànd kook moom te am ci ngërëmul sëriñ bi. di nuyu eh, sëriñ Sidi Mbacke mu Cheikh Abdoul Ahad Mbacke di ko ñaanal yàlla sunu borom bàyyil ñu ko ci kaw suuf lu yàgg lool te lépp ànd ko wér ak kattan gum gën a mën a liggéeyale sëriñ tubaa te lépp lu mu xëyee. baa mu gontoo ko yàlla na ci daje ak ngërëmul sëriñ bi mbokk yi ñu leen di nuyoo fii ci Daaru Salaam Boki Barga ci seen émission bi ñu duppee ëttu murit ngeen di ko miina a ànd ak seen mbokkum taalibe Fallou Gala Sill muy am dimanche ñu jot bu 22h jotee ci seen télévision Lamfal TV mbokk yi ñu jaajëfal bu baax a baax eh, jataay yi nga xam ne jàll na eh, dëgmal jataay bi nag di ci ziare mbooleem yoonu murit wépp di ci ziare mbooleem njabootu maam Cheikh Ibrahima gépp di ñaanal sëriñ Abo Mouhamed xalifatu Cheikh Mahamadul Mamoun yàlla na ko fi yàlla gën a yàggal gën a doole ak wéram waaye siyaare ak a ñaanal sëriñ Cheikh Anta Mbacke sëriñ Touba boobu yàlla na ko yàlla may fanu gudd ànd ak wér gi yaram mbokk yi ñëw ñu dëkk bii di Daaru Salaam Boki Barga muy dëkk boo xam ne Cheikh Abdoul Ahad moo ko sancoon te jamono yooya fekkoon fi ay taalibeem di ay xaritam di ay àndandoom di njabootuk sëriñ Aliou Diouf lambaay gi nga xam ne ñoo dëkke woon fii ci ñibbi rawatina ku mel ne sëriñ Mouhamadou Diouf ak euh, sëriñ Aliou Diouf euh, ñam bokkal sëñ Thierno Diouf euh, sëñ Abdou Lahat sanc fi ngir liggéeyal yàlla lépp lu fi mas a li itam teg na ko ci loxol Cheikh Mouhamadul Fadal Mbacke ibnu Cheikhuna Ahmadul Khadim mu defal ko ko ci liggéey jumaa ji ba yàlla dogal Cheikh Abdou Lahat war a toog toogaayub sëriñ Touba bi. Euh, mu fob dëkk bii nag teg ko ci loxol taawam bu baax boobu di sëriñ Sidi Mbacke ibnu Cheikh Abdoul Ahad Mbacke yàlla na ko fi yàlla yàggal te doole ak wéram moom it mu ne fi di fi liggéeyal lislaam liggéey bu rëy di fi liggéeyal sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul di fi yar ak njabootam waaye itam di fi jaamu borom bi subhaanahu wa taala euh, xam ngeen ne liggéey bii nga xam ne moom lañ tiim tey muy liggéeyu bàcc gerte ak jëri ko ak roñ ngooñ mi ak dajale ko yaakaar naa bu ngeen jàtt jàkkaarloo ak jataay yii wala boog jal yi ne ci sama ginnaaw da ngeen xam ne boroomu fit moo ko doon liggéey damay dégg nag ci Amsatul Xadim mi nga xam ne moom lañ jox liggéey bi yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér mooy wax ne eh, yafal sa màggat ak naap ab ragal ak xupp jàmbaar moom xel du ko def waaye yaakaar naa ne eh, sëriñ Sidi eh, jàmbaar la joo xamante ne bii yàlla na ko fi yàlla yàggal. mu fab liggéey bi teg ko ci loxol rakkam jëwriñam di sëriñ Hamsatu Mbakke ñu gën ko mën ci Hamsatul Xadim mu woo bokk jullit yëpp rawatina waa Kajoor rakkam sëriñ Abdul Akram moo ànd ak waa Kajoor gépp dégg ngeen e, incha allah dana feeñ ci biir reportage bi e, mu woo itam seex yi aju woon ci kër seex Abdul benn seex desut ñoom ñëpp ñu àndandoo wuy si ko njabootug maam Cheikh ma Fall gi ñoom ñëpp ñu àndandoo ñëw wuy si ko ci liggéey bi taalibe yi ak xarit yi ak soppe yi fu ne bokk da jóge fa àndandoo ñëw ci liggéey bi fas ko yéene liggéey ñu ñëw fi àjjuma ca ngoon le 10 décembre euh, samedi bi on 11 euh, heures di jot di la onze décembre ci lañ bàcc tool bi lépp ba mu àgg ci tool boo xam ne bay nañ fa lu mat 120 tonnes yi kemb euh, mu des njëriñ ma ñu jëri ko ci diggante dimanche ji ak altine ji tey jii ci talaata ji lépp lu doon am ngooñ ci dëkk bi yóbbu nañ ko ca biir Darou Salaam Barga lu doon gerte jal nañ ko ci tool yi nga xam ne fi la ko sëriñ di doon béyee loolu nag di ak njàmbaar loolu it mooy yoonu murit yoonu murit bokk yi liggéey la ak jaamu yàlla liggéey la ak jaamu yàlla. sëriñ bi dafa wax ne borom bi subhaanahu wa taala garanti naa ñaar ñii ma yor seen pajog aajo adduna yor seen pajog aajo àllaaxira mooy ñi nga xam ne bépp liggéey buñ ma wooteel boo demee fekk leen fa ñoom duñ yam ci liggéeyal sëñ tubaa tey delluwaat seen bopp ba ëllëgaat déedéet dañuy sax dakk seen dund gépp di ko liggéeyal sëriñ tubaa xaadimu rasul wa qadi hawaaj allazina daamo fii xidmati la wax wa hablahum maaraamu ñooñu daal ñi nga xam ne ñoo sax ci dama liggéeyal guddeeg bëccëg lépp luy seen bëgg na ko garanti yow yàlla na leen ko fajal waaye suñ faatoo it ba ba dem barsaqul muhammadiyya nañ bokk ci ñi ngay tàbbal ci biir àjjana moo tax mu ne inna allazina saarahu fii xidmati fa lahumu diyaar wasal jannati yaakaar naa ne nag fii nag kuñ bëggul nga am texeeg àdduna amoo bëgg ñu nga am texeeg àllaaxira doo fi teg sa tànk loolu am na mbokk mu ko wax nee na ku teg sa tànk ci tool yi bu la neexee sa aajo dana faju bu la naqaree sa aajo dana faju waaye baakaar naa ne bàyyi taax ya bàyyi lal yu nooy ya bàyyi climatiseur ya bàyyi lépp ñëw ci àll bi di fi faraan ay guddi te loo ci sàkku duñ la ko wax lu weesu ngërëmul yàlla rek lañ ci bëgg loolu yaakaar naa ne bokk yi mooy yoonu murit yoonu murit du waxi kese yoonu murit du ay yoonu murit jëf la joo xamante ne bii ku ko jëf rek sun borom subhanahu wa taala Euh, dana ko gis te bu ko gisee bu la ci fayee sa aajo dana fajoo àdduna ak jooj alaxira kon ñoo ngi ànd ak suñu caméraman Serigne fallu saw ci wàllu machine bi Alaaji Fallou Sylla damay ànd ak mbokk yi rek ñu dugg ci biir euh, liggéey bi ngeen xool ni liggéey bi demee ak fi mu jaar ak kàddu yi nga xam ne mbokk yi daañ ko ci seet bi liggéey bi nga xam ne moom la Serigne Sidi Mbacke mu Cheikh Abdoul Ahad di liggéeyloo Serigne Amsatul Khadim mu Cheikh Abdoul Ahad ca déggoon ngeen woote bi ni mu ko ànde woon ak njabootu Serigne Touba gi rawatina njabootu Cheikh Abdoul Khadir ak njabootu Cheikh Mouhamadul Fadal gi eh, ngeen jàkkaarloo woon ak Serigne Sidi ca woote ba mu àndoon ak Serigne Abibou yëkkati rajo bi fasaale ci murid yëpp Eh, tey jii ñu ngi ci liggéey bi yaakaar naa biig lañ fi fanaan si di ajuma 10 eh, décembre yemoo woon ak juróomi fan ci weeru rakkaati tey jii di gaaw bi eh, bi ñu xëyee mbàcc mi lépp jeex na mu ñu àndandoo nag ak sëriñ Amsatou di wër liggéey bi ba toll fi nga xamante ne bii fi la njëriñ mi toll sëriñ Sidi war cee yëkkati ay kàddu ci ni nga xam ne ni la ñu woote woon ak njàmbaaru ki nga xamante ne bii moo béy tool yi nga xamante ne bii fii ci Darou Salaam mbokki bar. salaamaaleykum wa rahmatullahi mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen balu ak leen mbégte bu baax a baax ci barab bi ñu nekk wuy si wuy woote boo xam ne sunu mbokk sunu xarit sunu walëre sunu mag sunu am sunu mbakke moo ko woote woon ci ndigalul kilifaam di magam sëriñ Sidi Mbakke yàlla doo war at yi yëpp nag mu koy mu koy jox sunu xarit sëriñ am sax mu koy woote liggéey boobu moom it mu ciy def pasteef ak njàmbaar di ko woote woote bu yaatu boole ci boole ci julli yëpp waaye boole ci taalibe yëpp sëriñ am sa nag lu mu nekk lu ne ñu ngi ci biir woote bi nag mu di itam wuyu ko bu baax a baax ngir aw meloom ab taxawaayam ci yoonu sëriñ bi ak pas-pasam ak taalibeem tax na lu mu yëngu lu ne bu ci woolee taalibe yi sawar cee wuy si ni nga ko waxee nag taalibe wuy seen mbooloo mi bari na lool jóge nañ ci gox yi ci réew mi bokk yëpp ñëw nañ wuy ko. waaw ñun daal lii daal ñu ngi rek liggéey liggéey ak ak ndigal waaw murid daal moom murid ndigal fu suñ wootee daal boo demee fekk ñu fa lu suñ bi néew tam boo demee mbir nag bu ko sun boroom bëggee ku jariñu ku bëgg jariñu ku jëf jariñu kon yàlla na sun boroom may ñuy mën a teew tey mën a jëf waaye woyofal ndigal baaxut saa soo déggee ab watte fexeel ba bokk ca ñay wujji te boo dee bu ma demee ba mu àgg bu ma demul mu àgg lu ca sooxe yow la koom ak farlu da ngay teew kon nag teew gi moom yàlla na sun borom may kàttan guñ ko mëne may nu nangu guñ ko mëne may nu cawarte guñ ko mëne te lañu ca jëf yàlla na ko suñu borom nangul lépp nag nu delloo si ko ci ñaanal borom tool yi Serigne Sidi Abdou Lahad suñu borom ko fi yàggal te mu ànd ko wér taalibe itam lay seenu bëgg di seenu nameel ci sëriñ bi yàlla na ko suñu boroom jaaree ci lii ñu jot ca Serigne Saliou danaa wax ne am mu di lépp lu sëriñ bi eh, santaane bu cay dugg na jàpp ne fajuk aajoom te loolee la nay kon lii itam nañ jàpp ko ku fi yëngu rek yaa ngi ci buntu buy faj sa ajo yàlla na demee noonu ci barkeb Serigne Saliou ñoo ngi jàkkaarloo nag ak eh, Serigne Hamsatou Mbacké mu Serigne Cheikhouna moom Cheikh Abdou Lahad Eh, di di di doom ci sëriñ bi di taalibeem di turandoom eh, sëriñ Amsa faboon jëm bis at mi sëriñ Sidi fabee liggéey bi teg ko ci loxoom mu fabaat lépp lu jëm ci wàllu organisation yi teg ko ci loxoom doy loo ko ci sëriñ bi yaakaar naa ne juróom-benni at yaa ngi koy ñëw Darou Salam Boki Barga day mel ne at mu jot loo fi gis day gën a yokk waaye ren ji ci wàllu organisation bi gis nañ ne mbooloo mi bari na liggéey bi bari na waaye itam gis nañ ne dara manqué wut nan nga tënk organisation bi ba liggéey bi toll fii. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah sëñ Fallou ñu ngi lay ziar bu baax a baax di ziar waaw di ziar mbokki taalibe yëpp waaw ci li ñu laaj euh, bala ñoo tàmbali dañuy sant bu baax a baax sëriñ Amsatou ci boole gi nga xam ne boole nañu ci ndigal li nga xam ne sëriñ Sidi Mbacke joxoon na ko ñu leen di ñaanal nag ñu yàgg fi lool te wér nag. waaw ndax li may wax saa bu nekk rek ku lay liggéeyloo ci Serigne Touba mooy ku la bëgg a dimbali rek la mu ngi leen di sant bu baax baax ci taxawaay bi bu dee ci organisation bi comme ni nga ko waxee la rek chaque année mm, bañ tàmbalee ba léegi wax dëgg yàlla dañuy gën a sant yàlla ndax bilan bi saa bu nekk rek gis nañu day positif léeg-léeg xëy na foo dajale mbooloo moom du ñàkk léeg-léeg ay yenn yu ndaw ndawaan yu ci am waaye saabu saa suñ ko amee dañ koy sant yàlla ndax dañuy jël ci yooyu not jàpp ko tënkee ko ngir bu ël tàmbalee ko ca liggéeyub déwén ba bala ñu egg ñu fexe ba régler loolu loolu moo waral li mbooloo mi bari bari wax dëgg yàlla dégguñu fi benn jàmbat wala lenn loo xam ne nii wane na ne euh, nit ñi mbégte daal la ñuy wan ak kontante ak yitte yi ñuy am yëpp ku ci agsi niñ ci war a taxawee taxawee nañ ci bilan bi daal positif na ñu ngi sant bu baax nag sëriñ bi waaw xam nga euh, mbir mu nekk rek euh, xëy na li ma la koy waxee léegi liggéey saa bu nekk yu mel nii mu am ay tuuti ay xewli rëq-rëq yu ndaw rek dañ ciy sant jël ci jëlee ci njàng mooy li ko waral bokk na ci oto yi nga xam ne nii moo ay benn ak yooyu ñu ñu xawoon a manqué loolu moo xaw a yéexal liggéey bi waaye ci pësteefu nit ñi euh, ak seen taxawaay liggéey bi boo xool xam ne du liggéey bi ñuy def ci ñetti fan waaw waaye kon euh, ay ay yu ndaw la yoo xam ne léeg-léeg mu am muy mel na ay manqué ay benn yeeg yooyu waaw waaye ak yi jamono bii ñu tollu fekkit ñu bari di woote ci liggéey bokk na ci li ko xaw a gàllankoor rek waaye danañ ci jàngee incha allah rabbi beneen euh, yoon danañ ci gën a taxaw daal. Euh, li yi wees moom kon dañ koy fàtte rek <laughs> ndax ndax boo xoolee liñ liñ def lu daaw li lii mën na ko ñaar te gerte gi moo gën a boo xoolee moo gën a diis moo gën a nangu macha allah waaw ren moom macha allah at mu ne daal ñun xam nañ ne at mu ne daal bu ñuy ñëw dañuy waajal jàpp ne lañ fi bàyyee ren danañ ñëw ngir ñaar wala ñettam waaw loolu moom noonu lañ koy am dama fekkoon ne sëñ bi tey américain la wala ci réewu nasaraan yi danañ ko décorer def ko héros national laa wax waaye li may gën a man dama ñuy am sax léeg-léeg naqar ndax ku mel ne Serigne Sidi nga xam ne ci ñu dàq bay mën naa ne Sénégal jamono yi ñu toll ci la bokk heure bi waroon naa fekk ñu ñu ñu ñu ñu ñu jëf ko gouvernement bi accompagner ko waxuma dara waaye euh, xale yeeg nit ñi ngir ñu am ay royukaay waaye xam nga euh, gouvernement bu nër bu nërtat liggéey li koy gën a euh, ñor mooy lu jëmee nit ñi ci ay diversion maam ay fo ay ay ay yu jëmut fenn waaye kuy def te yàlla tax ku bëgg ku ku ku bëgg dëgg ku bëgg am réew développé sur le plan économique fi mu nekk nii mënoo cee wax ci surtout ci lu aju ci bay te ñu tuddoo ko mel ne Serigne Sidi moom sëñ Abdou Lahad ci lu wér ci lu wér fii dërëmu état demu fi maaloo dërëmu état demu fi ci dara ba ci ñun ñi liggéey lu fi état def ñun ñi ñi ñëw di ko liggéey nii lépp sëñ sëñ bee koy def ak taalibe yi moo tax bu ñuy wax ku ci wax ne réew mi ñor na la te gisuma la ci lu mel ni daf may jaaxal na heure bi war naa fekk ñoom sax ñu ñëw fii xool jàngat yi am jëlee ci ay expérience yoo xam ne nii ba ci ñiy xëccoo bëgg réew mi ëllëg war nañ cee mën a roye ci lu bare bare ndax ku mel ne ñaari sëñ Sidi bu ñu ko amoon wala ñett rek yaakaar Sénégal moom li ñuy wax euh, autosuffisance alimentaire bi ñu bëgg mën naa nekk ci lu wér a wér moom. waaye ci lu miin lañ ko mën a dëggale ci lu dul politique politicienne waaw loolu laa laa gis waaw ñu ngi sant taalibe yi nag bu baax a baax di santaat sëriñ bi bu wér di sant sëñ am sax moom it wax dëgg yàlla ndax at mu ne danañu woo ñu taalibe yëpp delloowaat ñu ci Serigne Touba ndax lii ñun ñëpp a koy xiif saa bu nekk nit ñi am nañu yéene ak pas-pasu liggéeyal sëñ bi waaye bu ñu amee nag occasion am kilifa yu leen ci woo dañ ciy sant bu baax di ñaan seen taxawaay gën a yàgg ñun ñëpp euh, lu ñu def ren ñu def saa bu ñu ñëw rek gën a jekk gën a man ci barke bi jërëjëf. lii ak la ci sun kanam jekk nañ tey dëkk ëllëg noppi nañ ci liggéeyal Serigne Touba duñ ci amuñu benn yitte waaw. nun ñii ko ànd it ñun la sunu maam yi àndoon di liggéeyal Serigne Touba naka njëkk noonu ñu ànde biñ biñ jotee ndigal li ak bis bis biñ aksee fii moo yem bañ jotee ndigal la lañ tàmbaloon di liggéey bi waaw du fi lu may yàkkamti ko waaw euh, bañ agsee it xëy dal ci ko am bañ xëyee ba léegi ñoo ngi ci. kon demb lañ waajoon waaye fii nag ku fi ñëw ki nga fi fe ki nga fiy liggéeyal si da nga xam ne ki mu ki mu wutu ma nga ca tànkam ya ku ñëw ci tool bii. da nga xam ne ki defar tool bi ba woo fi mbooloo mii ma nga ci tànku sëñ blaat donte woon doomu sëñ a jot nag waaye topp na tànk ba de te sëñ bi sëñ daana wax ne neen da booy topp tànkam soo ko téyee baax fu mu taxaw danga ko fa fekk kon yàlla nañu yóbbaale fa sëñ blaat amiin jërëjëf euh, mbokki téléspectateurs yi ñu topp dañu seetaan ci euh, site internet yi waaye dañuy suivre ci télé yi ñu ngi wéy di ànd ak yéen fii ci Darou Salam Boki Barga euh, xam ngeen ne ne gisoon ngeen ni ma ko waxee woon ca appel ba sëriñ Habibullahi ibnu Cheikh Mamadul Fadal te ni ma koy faral di waxee rek kër sëñ Fallou koo ci gis rek boo waxee jàppal ne sëñ Abou Baraka moo wax ndax la seen waajur woo waxoon ne moom dafa jaayanteeg sëriñ Tuubaa ba amatut te kaddu googu nag mu niróo la ko lool ak kaddu ki nga xamante moom la ñëw ci toolam bi tey la sëñ Fallou waxoon ne damaa jaay ak sama njureel ba amatuma sëñ Abdou Lahat loolu la waxoon ne ah taytu kal yow ma beneen xitaaxi kulliyati yaa xaadim yaa xaadimal mutaaxi moo xam ne kon ñoom ñaar ñoo bokk position bu ñu taxawee mooy fab seenu njaboot ak seen jëmm jébbal ko sëñ Touba tey jii nga ñëw ci liggéey bi nga xam ne mosoo cee ñàkk a ñëw wuy si sa sarak di sa xarit di sëriñ Amsatul Xadim mu Cheikh Abdou Lahat waaye wuy si waati nam sa mag di sa xarit di sëriñ Sidi mu Cheikh Abdoul Ahad ci njàmbaar gi nga xam ne def na ko te kenn déggut kàddoom ana yan kàddu ngay mën a yëkkati soññiwaat ko taalibe yi ñu xam ne lii rek mooy yoon wi. mu ne asalaamaaleykum wa rahmatullah nee na mi ngi nuyu bokki taalibe yëpp. di nuyu bokki taalibe jullit yëpp. nee na di sant yàlla bu baax a baax. di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. sant Serigne Touba. di sant Serigne Touba. nee na alhamdulilahi rabil alamin dikk naa fii tey ci bokki barga. dikk naa fii tey ci bokki barga. mu doon toolub sunu sëriñ Cheikh Abdoul mu doon toolub sunu sëriñ di Cheikh Abdoul Ahad. yal na yàlla leeram. yal yàlla yokk ay leeram. taas ci barkeem. ca taas ñu ci barkeem. mu jàmbaar joo xam ni. mu doonoon jàmbaar joo xam ne. jàmbaaram ñëpp xam nañ ko. ña ña ko war a xam ñëpp xam nañ ko. képp ko jàmbaar ci yoonu murid rek moo nga yoroy. nee na képp ku doon jàmbaar ci yoon wi rek moom ngay roy. ci njàmbaaram nga. ca njàmbaaram nga. ca taalibeem nga. ca taalibeem nga. bëggam sëñ Touba. di ko. bëgg sëñ Touba ak bëggam sëñ Touba. bëgg bëgg sëñ Touba yëpp. bëgg waa kër sëñ Touba yëpp. bëgg jullit yëpp. bëgg itam bokki jullit yëpp. bañul kenn ñëpp bëgg. bañul kenn moom Cheikh Abdoulaye ñëpp la bëgg. ñëw naa fi tey ci tool yi fekk sama sama rek. nee na sëñ Mourtala nee na ñëw na tey ci tool yi fekk fi rakam. di sama doomi sëriñ. di doomi sëriñam. di sa di sa. di sëriñ Amsatu Mbàkke mii. di ko jàppale liggéey muy liggéey. di ko jàppale nag ci liggéey bii muy liggéey. di soññ di rek. di soññ taalibe yi rek. ñu xam ni. ñu xam ne. ñun amul lu ma liggéey sëriñ bi rek. ñun day amuñu lu weesu liggéeyal sëriñ bi. bu ñu sonn bu ñu yokkat. nee na bu ñu sonn bu ñu yokkat. nañ ci sax faw rek. nañ ci sax faw. sëriñ bi fi nekkee. sëriñ bi bi mu fi nekkee. ñu fi nekkaloon. ñi fi nekkaloon. guddi. daawuñu nopp lu guddi. daawuñu noppalu bëccëg. moom moom ci boppam daawut noppalu moom moom. sëriñ bi sax daawut nopp noppalu moom. fu mu toll mi ngi mi ngi kër kër rek. fu mu tollu ma ngay kër kër yi. di soññi njaboot gi ñuy kër kër rek. di soññi njaboot gi ñuy kër kër yi. kenn amul jot. kenn amul jot. wax nañu ne. wax nañu ne. mas nañoo liggéey ba guddi. mas nañoo liggéey ba guddi. bay bëgg a tëdd. bay bëgg a tëdd. mu jóg ne leen. mu jóg na leen. jóg leen liggéey. jóg leen liggéey. adduna nelaw xaju fi. adduna nelaw xaju fi. sëñ Abdou mu baax mi nee na. sëñ Abdou Lahad mu baax mi nee na. gannaaw sëñ gannaaw sëñ Touba. lañ tala nelaw. lañ tala <laughs> nelaw. waaye ba mu fi nekkee kenn talatu nelaw. waaye ba mu yàlla baaxee na ñun. ñun nag yàlla baaxee na ñu ñun. Eh, sëñ Touba di sunu lépp. sëñ Touba di sunu lépp. la ma amoon si la ma la ma amoon. te la mag ña amoon. ñun ñi am nañ lu ko raw. ñun ñii am nañ lu ko raw. fuuf sax. fuuf sax. ci ay xéwal. ci ay xéwal. ak ci dal. ci ak dal. ci xel mu dal. ak xel mu dal. ndax ñun ñoo ngi nii. ndax ñun ñoo ngi nii. lépp lu ñu bëgg rek lépp lu ñu bëgg rek sëriñ bi defal nañu ko sëriñ bi defal nañu ko te mag ñooñee te mag ñooñee toog na toog na sëñ Touba toog toog nan sëñ Touba toog ñu wax ñu dégg ñu wax ñu dégg nun noo ngi nii nun noo ngi nii gisuñu sëñ bi gisuñu sëriñ bi waxuñu dégg waxuñu dégg te xéewal yi ñu am kat te xéewal yi ñu am kat mag ñi amuñu ko sëñ bi mag ña toogoon ak moom sax kat nag amuñu ko nañ wax dëgg nañ wax dëgg rek ceebu jën baa ngi nii ceebu jën yaa ngi nii afra baa ngi nii boisson baa ngi nii boisson baa ngi nii bassin yaa ngi nii lal yu nooy yaa ngi nii lal yu nooy yaa ngi nii lépp ngi nii lépp ngi nii te sëriñ benn ko andil te mag ñooñu gisuñu ko te mag ñooñu gisuñu ko kon noonu kon nag noonu sëñ Tuubaa kat gisuñu sëñ Tuubaa de nañ ko sant lépp mooma lépp mooma sëriñ Amsa maa ngi jégalu maa ngi jégalu nee na sëriñ Amsatu mi ngi jégalu maa ngi nuyu ci sëriñ Muntaxa maa ngi nuyu nag sëriñ Tuubaa sëñ dama tàmbali dama tàmbali dama tàmbali rek fàtte waaye loolu sax wóorul ma tax dama dama dama dama dama dama dégg ba xaw ma lu may wax nee na damaa ñëw ànd ak mbégte ba xaw ma lu may wax waaye ci Serigne Touba laa waroon a tàmbalee sëñ Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg te wér lépp lu mu bëgg a si Touba lépp lu mu bëgg a liggéeyal sëñ Touba yàlla ko liggéey si noonu ak moom yàlla na ko liggéey te ànd ko moom moom jëmm la joo xam ni moom jëmm la joo xam ne sëñ Touba ne ko tegaloon rek Serigne Touba moo na ko fi tagal rek ñu jotee mu ñëw ànd ak ñun ci liggéey liggéey sëñ bi ba mu jotee mu ñëw ànd ak ñun ci liggéey sëñ bi waxtu wu yëkkatee kàddoom waxtu wu yëkkatee kàddoom boo dee murit boo dee murit sag murit dana gën a yokk sag murit dana gën a yokku da bëgg da nga bëgg sëñ Touba da nga gën a bëgg sëñ Touba gën ko sopp gën koo sopp gën koo wóolu gën koo wóolu ndax wax na sëñ Touba ndax daa wax na sëñ Touba malaaka yóbbu ko malaaka yebu ko ab yonent yëbu ko ab yonent ko waaw ku malaaka yëbul nag ku malaaka yëbul nag ab yonent yëbu ko ab yonent la si doomu aadama waru koo yab si nag doomu aadama de waru koo yab moom waru koo yab waay waay nañ xalaat ah. loolu doomu aadama waru koo yab nañ xalaat nañ xalaat loolu nañ xalaat loolu mu waxit ni mu waxit ne sëñ sëñ Tuubaa sëñ képp kuy dund sëriñ Tuubaa képp kuy dund malaaka yi ñooy sa nawle malaaka yi ñooy sa nawle man ngaa dem man ngaa dem ba gën leen sax ba gën leen sax man ngaa dem sax ba gën leen ndax nga ne nga ne yàlla koy joxe ngëneel yàllaa koy joxe mën na ko jox malaayka mën na ko jox doomu aadama mën na koo jox malaayka mën na koo jox doomu aadama sëñ Muntaxa moo wax loolu sëñ Muntaxa moo wax loolu kon nag sëñ Amsa kon nag sëñ Amsa sant yàlla bu baax santal yàlla bu baax léegi gën a góorgóorlu te ñu gën a góorgóorlu eh, eh, di nuyu ci turu sëñ Abo moom Cheikh Amadou Fadal di la nuyu nag ci turu sëñ Abo moom Cheikh Amadou Fadal di woon si wàllu gépp di nuyu sëñ njaboot gépp xam naa danga maa danga maa gas sax ni ci wax ji nee na xam na ne danga koo gas sax ci wax ji waaye sëñ bi sama rek waaye sëñ Abibu rakkam wax na lépp wax na lépp nun nun ñëpp benn lañ te ñun ñëpp benn lañ bu kenn waxee rek bu kenn waxee rek ñëpp wax nañ ñëpp wax nañ kon nag kon nag wax ji daa mënut a ñàkk rek wax ji daa mënut a ñàkk rek maa ngi nuyu ci suñu njabootu sëñ gépp rek maa ngi lay nuyu ci turu sëñ Abo ak mbooleem njabootu sëñ Fall ak njaboot gi ma àndal ak njaboot gi ma àndal sëñ Modou Mbacké sëñ Modou Mbacké sëñ Saliou moom sëñ Saliou Moustapha Ndiaye sëriñ Moustapha Ndiaye Aliou Gadiaga sëñ Aliou Gadiaga sëñ Aliou Gadiaga ñu fekk monsieur le maire ñu ñëw fekk fi monsieur le maire <laughs> ak sama bokki mbàkki ma yëpp yi fi nekk yëpp rek taalibe yi ak bokki taalibe yi bàyyiwuma kenn bàyyiwuma kenn ah, lii wax dëgg neex na neex de nee na lii de neex na lool ndax liggéeyal sëñ moom liggéeyal sañ bi moom moo am solo lool moo am solo lool yal na yàlla dimbale yal na nu yàlla dimbale saxal ñu ci taalibe saxal ñu ci ak taalibe saxal ñu ci liggéeyal sëñ bi saxal ñu ci liggéeyal sëriñ bi ñu bañ a yàqu ñu bañ a yàqu bañ a a yàqule sëñ Sidi donc sëñ baax mbak di gërëm nee ñi ngi sant nag sëñ Sidi bu baax te di ko gërëm sunu mag sunu mag di sunu xarit di sunu xarit di sunu doomi sëriñ di sunu doomi sëriñ <laughs> sëñ Abdoulaye moom sëñ moom man xam miin naa moom lu bëree bëri man miin naa ci moom lu bëree bëri lu bëree bëri teew naa mu wax ma ko lu bëree bëri teew naa mu wax ma ko yu ma wóor yu ma wóor na ma ko waxee yoo xam ne na ma wóore na ma ko waxee na lay amee na lay amee <laughs> loolu xam naa ko moom loolu man xam naa ko ndax damaa bëggoon ndax damaa bëggoon ngir ngir jëm sëñ bi rek ngir jëmi sëñ bi rek am na sama ñaari mag yoo xam ne yii am na ñaari magam yoo xam ne say say masa dem fa moom dem ma saa suñu masaa dem fa moom man lay woo ni ma moom mii la woo na ko amal lu ma déy am ma am lu ma déy ma wax ko sama ma wax sama ñaari mag yooyee <laughs> ma wax ko sama ñaari mag yooyee te te loolu ak wóolute la te loolu ak wóolute la aku mbëggeel aku mbëggeel waaw mas na wax ne ma itam mas na ko waxit na ko lii ma lay wax lii ma lay wax jortuma ko jortuma ko. fooguma ko. fooguma ko. mu ne mu ne ma. mu ne ma. da nga toog ba sant yàlla. da nga toog ba sant yàlla. sëñ bi moo ko wax sëñ bi moo ma ko waxoon sëriñ bi. loolu nag doomi sëriñ la ko waxee. loolu nag bu la ko doomi sëriñ Tuubaa waxee. sant yàlla la sant yàlla la. sant yàlla kat. sant yàlla la kat man sant bu baax. nee na man maa ngi sant bu baax. te jéem yeesuwaat. di gën a yeesuwaat. sunu taalibe gi. sunu taalibe gi. sëñ Tuubaa. ci sëñ Tuubaa. nan nan bëgg sëñ bi. nañ bëgg sëñ bi. nañ ko fonk. nañ ko fonk. nañ ko def lépp. nañ da ko def lépp. daal mu sëñ bi la am ñun daal sëñ bi rek la ñam doy nañu sëkk doy nañu sëkk doy nañu ko doy loo ko doy nañu sëkk doy nañu sëkk lu waay am booy nga jël lu waay am nag lu dul sëñ bi bay boo nga jël soxlawuñ dara soxlawuñ dara gannaaw sëñ bi sëñ bi lépp la am ginnaaw sëñ bi lépp la am lu ñu soxla leneen keneen lu ñuy soxlay leneen keneen jëru ko jëru ko sëñ bi rek sëñ bi rek mooy suñu tey mooy suñu tey mooy suñu ëllëg mooy suñu ëllëg taalibe itam tam itam yàlla sëñ Tuubaa dimbale yàlla na leen sëñ Tuubaa dimbale may leen kattan may leen kattan ak xéewal ak xéewal ak wér ak wér wax yàlla ndax yàlla day sëñ bi de sëñ bi kenn xam na ne sëñ xam ngeen ku ne xam na ne ah bari na bari na jaam yi bari na jaam yi bari na ci loolu de bari na ci jaam yi loolu de xanaa su ma ñëpp day xanaa su moomut ñëpp it de. bari na ci de. bari na ci jaam yi lool. ndax waxtu wii. ndax waxtu wii. kilifa yi ñu ngi woote. kilifa yi ñu ngi woote. te ku woote ku nekk. te ku woote ku nekk. la fay dem ci mbooloo. la fay dem ci mbooloo. da lay yéem. da lay yéem. da ngay yaakaar ne da nga da nga foo dem rek. da ngay foo dem rek. mbooloo mi nga fa. da ngay yaakaar ne murid gépp nga fa. loolu loolu sëñ Tuubaa moo moo noonu. loolu nag sëñ Tuubaa moo demee noonu. yàlla koo fay jaam ñi. yàlla ko fay jaam ñi. boole ñu ci. boole ñu ci alhamdulilah rabbil alamin alhamdulilah rabbil alamin jërë ngeen jëf ñu ngi jërë ngeen jëf sant naa ñëpp sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp ngeen baal maax ngeen baal maax wasalaamaaleykum asalaamaaleykum mbokku taalibe yi ñu ngi leen di siyaar bu baax a baax kii ab dong bu naa Aliou Badara lay nekk fii si dalu sama maam Mbàkke moom si am sa moom si ab laat euh, ñëw wuy si ndigal ndigal seen si di monsieur Blaat jaara ko si jëluñ ju baax ji di si am sa di jàmbaaru yoonu mu yëpp ak sama maam Mbàkke mi nga xam ne moom la ànd si liggéey bi xam lépp loo xam ne xéewal la di jëm si kilifa yi si si mboolem dal yi fi nekk xam ni yàlla doon na si loxoom ko rek. moom la ñu daal di ànd ak moom ànd koog taalibe mi nga xam ne ñoo nekk euh, Touba nekk Dakar nekk Kaolack dëgg yàlla fu fu waay nekk ànd nañ ànd nañ koog moom def seen doole def seen yéene ngir euh, làkk ngërëmal sëñ Touba làkk seen ngërëmal mboolem njaboot sëñ Touba yëpp. waaw moom di sant bu baax yéen ñi nga xam ne yéen waa yéen waa Assalaamy TV liggéey bu rafet bi ngay def ndax boobu tey ñu ngi koy bàyyi xel yéen ngi jël xéwal di di tasaare àdduna bi liggéey bi ñëpp di ko gis te mu liggéey bu rafet loolu moom ñoo ñaan saa borom jël leen kattanal te fi nga bëgg tim télé bi àgg saa borom yóbbu ko fa mu àgg fa waaye dina xam daal suñu yéene mooy lépp loo xam ne sëñ bëgg na ko moo ñu nesi ndax la serafa daal wax naan sëñ Bamba de sang sanga fu mu àgg sama jaam àgg na fa ñun te loolu yëpp liggéey suñu tuwaa dong dong dong dong dong moo ñu war te ñun nag melo boobu la ñuy yor melo Serigne Fall euh, jëfe ndigal loolu ah te mu nekk ak bànneex su ñun nag ak bànneesu ñu su suñu suñu suñu suñu kattan suñu lépp daañu ko si def ngir lan melo melo mul sare boobu moom moom Cheikh Ibra dimbali bu mag ba moom doo lañ si royee lii lépp ànd ko ànd ko suñu suñu jëriñ bu baax yi waaw ah, kon nag ñoo ngi sant bu baax a baax a baax kii ma nag sama sama wet nag mooy sëñ moom Mouhamadou Lamine Ba la moom itam di kenn si jëwli di boom passif lool waaw ndax moom itam ba sëñ bi soo sa wootee yëpp boo gisee diwaan ñëpp ñëpp a ngi fi ñoom ba Dakar ñu jógee ba Kaolack ñu jógee ñëpp ñëw te ba suñu woote ba tey àjjuma ba tey ñoo ngi fi fas yéene itam toog fi ba kay liggéey bi jeex rek saa bu suñu ji ñaane rek mbool ñu ngi ñu ngi ñu ngi yem foofu waaye di ñaanal ko fi lool te wéral ko bàkkab sëriñ Tuubaa amatuñu dara luñ ci war a mën dolli xanaa dolli ak cant yàlla sunu borom jul ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam sant sëriñ di yeesalit sunu jaayante ci kër sëriñ Abdul Ahad dina ko seeraloo yéen ñi nga xam ne yéen a ko ci moom li nga xam ne liggéey la boo xam ne nii taalibi benn bu nekk. sëriñ bi mu ne taalibi bu nekk. sawar na caa dugg. sawar naa dugg ci liggéey bii. yàlla teg ko ci sa loxo. nee na yàlla teg ko ci loxoom. muy sëñ Amsatu mii. muy am Amsatu mii moom sëñ Abdou Lahat. mu xam ne. nee na mu xam ne. kër sëriñ Touba. kër sëriñ Touba. lépp lu ñu fay séddale. lépp lu ñu fay séddale. sëriñ Mirina am na ci ab cër. sëriñ na am na ci ab cër. mu ñëw fa man. nee mu ñëw fa moom. wax ma cer boobee. wax ko cër boobee. wax nga it. nee na wax nga dara waralu ko ludut. dara waralu ko ludut. yaari yëf rek. yaari yëf rek. muy kër sëñ Abdoulaye gi nu bokk. muy kër sëñ Abdoulaye Mbacke gi nu bokk. ak fee ma nekk fa Touba. ak fee mu nekk ca Touba. nekkal fa njabootu sëriñ Mirina gépp. nekkal fa njabootu sëriñ Mirina gépp. bi ma ko waxee it. nee na ko ko waxee it. dama daal di dem ci sama kilifa. daa daal di dem ci kilifam di kilifa ak Taïba gépp itam. kilifa ak gépp. muy sëriñ Ousmane Sill. muy sëriñ Ousmane Sill. yëgal ko ko. yëgal ko ko. mu sant ci yàlla lool. nee na mu sant ci yàlla lool. joxe ci ndigal. joxe ci tamit ndigal. lu mat sëkk. lu mat sëkk. yëkkati baatam. yëkkati baatam. wax ne fépp fu waaye mën a nekk. wax ne fépp fu waay mën a nekk. te nekkal fa sëriñ Mirina. ta nekkal fa sëriñ Mirina. nañu daal di wuy si ci woote boobu. nañu daal di wuy si si woote boobu. yemut ca wax ja. na yemut ca wax ja. dafa dafa jël ab taawam. dafa daal di jël ab taawam. boole koog lépp lu juddoo ca kër ga. boole koog lépp lu juddoo ca kër ga. muy góor di jigéen. muy góor di jigéen. ak lam am ci wërsëgam. ak lam am ci wërsëgam. moo jiitu ci liggéey bi. moo jiitu ci liggéey bi. noonu mu ko wootee itam. nee na moo noonu mu ko wootee itam. noonu la ko njabootu sëriñ Mirina gépp wuysee. noonu la ko njabootu sëriñ Mirina gépp wuysee. muy góor. muy góor. muy jigéen. muy jigéen. di di mag. di ndaw di ndaw sëriñ bi defe naa jataay bi nee na sëriñ bi defe naa ne jataay bi mbooloo mi mbooloo mi boo ko xoolee boo ko xoolee génn fi li sant sill génn fi li sant sill dana jafe nga dem ci beneen jataay dana jafe nga dem ci beneen jataay xool bokk yafa fa daje xool bokk yafa daje génn fa ña fa bokk bi genn bokk génn fa ña bokk genn bokk loola nag nee na loola itam lu lu lu ñu judd fekk fa la. lu ñu judd fekk ko fa la. ndax sëñ na ndax sëriñ na mësta dugg ci lenn. mësta dugg ci lenn. te ant ant ak bokkam yëpp. te ant ak bokkam yëpp. loolu lan dégg ci moom. nee na loolu lañ dégg ci moom. da wax ne. nee na da wax ne. su ma saa jóg. su ma saa jóg. di siyaare si sëriñ Touba. di siyaare si sëriñ Touba. day wax Taïba gépp nañ jóg. day wax Taïba gépp nañ jóg. te Taïba géppay jóg itam. te Taïba géppay jóg itam. ànd ak moom ànd ak moom. loolee nag. nee na loolee nag. mosu faa jóge. mosu faa jóge. waaye kii ko fi ko fi nekkal. waaye kii ko fi nekkal. di sëriñ Ousmane Syll. di sëriñ Ousmane sil da ko yeesal lool. da ko yeesal lool. ba mel ni. ba mel ni. bu ko sosutit bu ko sosutit dundal na ko dundal goo xëy ni dundal na ko dundal goo xam ne. baax na ca lool. baax na ca lool. ba loolu moo waral jataay bi. nee na loolu moo waral jotaay bi. moo waral ñi ñii ma la ñëpp. nee na moo waral ñii ma la nuyul ñëpp. ñu bokk wenn sant. ñu bokk wenn sant. bokk benn wenn wayjur bokk wenn wayjur ay mag ay mag ay rak ay rak ay doom ay doom la ca dooleeku nee na la ca dooleeku muy ay gor yoo xam ne muy ay gor yoo xam ne dañoo xayma moon sëriñ Mirina dañoo xaymee moon sëriñ Mirina ci aw doxiinam ci aw doxiinam ba tax ñu ànd ak seenu njaboot ba ñu ànd ak seenu njaboot ñëw jaayante moom ñëw jaayante ak moom ngir yàlla ngir yàlla ak sëriñ Touba ak sëriñ itam nee na itam kër genn gu fa gum ci gum ci mën a doon. kër genn gum ci doon. ña fay dund. ña fay dund. ñëw nañu. ñëw nañu. taxaw tànk yu seen maam. taxaw tànk yu seen maam. ak seen i baay. ak seen i baay. ak seen yeneen i seen yeneen i kon sëriñ bi. nee na kon sëriñ bi. njaboot gaa ngi nii. njaboot gaa ngi nii. njabootu sëñ miir naa ngi nii. njabootu sëñ miir ngi nii. ay doomam a ngi ni ay doomam a ngi ni ay sëtam a ngi nii. ay sëtam a ngi nii. ay taalibe ma ngi nii. ay taalibe ma ngi nii. dara nag indiwu leen fi. nee na dara indiwu leen fi. lu sàkk si ngërëmal yàlla. lu sàkk yàlla. te ja am nañ ci yaakaar itam. te it am nañ ci yaakaar itam. kon yaakaar jooju Mbacke. kon yaakaar jooju Mbacke. maa ngi dagaan ci kàttanug yàlla. nee na mi ngi dagaan ci kàttanug yàlla. barkeb Seexul Xadim. barkeb Seexul Xadim. barkeb Seex Abdul Ahad. barkeb Seex Abdul Ahad. nga nga nga nga fexe ba mu àgg. nga fexe ba mu àgg. bu ci dara des. bu ci dara des. na nga ñu dimbale ngir yàlla. nee na na nga ñu dimbale ngir yàlla. ñun nii nii ñu fi bokk teewe. nii ñu fi bokk teewe. ak njaboot yéen bàyyi ca kër ga. ak njaboot yéen bàyyi ca kër ga. nañu yàlla boole musal. nañu yàlla boole musal. nanu yàlla boole dolli nanu yàlla boole dolli nanu yàlla boole saxal ci kër sëriñ nanu yàlla boole saxal ci kër sëriñ Touba nun ñëppit nag na ñun ñëpp ñëppit nag maase nanu maase nañu di ñaanal sëriñ Mountakha mi fi nekk di ñaanal sëriñ Mountakha mi fi mu yàgg fi mu yàgg fi te ànd ko wér te ànd ko wér waaye di ñaanal sëriñ Sidi nag nee na waaye di ñaanal sëriñ Sidi nag mi nga xam ne mi nga xam ne mooy sunu buntu mooy sunu buntu mooy sunu jëwriñ mooy sunu jëwriñ ci kër sëriñ Touba ci kër sëriñ Touba mu yàgg fi lool nee mu yàgg fi lool te yéen ñii di ay rakam te yéen ñii di ay rakam dox suñu diggante ak moom dox seen diggante ak moom ngeen yàgg fi ngeen yàgg fi ngeen yàgg jiitu ngeen yàgg jiitu ñu yàgg topp ci yéen ñu yàgg topp ci yéen jërëjëf Mbacke jërëjëf Mbacke ne matuma ndawam waaye gannaaw ab taalibe laa te ngeen di samay bokk war naa caa mën a wax si ak taalibe kon sëñ na ne mi leen nuyu baax di leen jaajëfal lii nga wax dara mënu cee dolleeku ndax sëñ ba muy defar day defar kenn mu defar mbooloo foofu dem ci barab la ci ëpp kenn rek la sëñ bi defaroon ba mu ko defaree ba delloo si ko fa mu jóge woon ña fa nekk xeemam ko topp ci ginnaaw sëñ woon ci loolu fii jamono ak si tey su fekkoon ne defarutoon menn mag kon tey gon yi kenn du leen maa defar ndax barab boo dem te defu sëñ defaru fa dara dara nekku fa foo seen dara rek sëñ tubaa ko fa def barab yi mu defar yëpp ku fa dem ku ñëw ci mbooloo mi da nga xam ne sëñ Tuubaa defar na mbooloo moomu de ndax nii ñu toogee ñetti fan ñu ne ko ci àll bi di xëy ci naaj wu tàng di ci yandu ba guddi nga ñëw doo tala sangu fanaan ci biti loolu sëñ Tuubaa rek ko mën a am koo seen mu mere nu lii rek la nu mere waaye du leen defuñu kenn dara koo dégg mu bañ sëñ Tuubaa lii rek la ko bañee ñii nga xam ne nanguñoo moom daal seen bopp lépp njox ko sëñ Tuubaa loolu rek a naqari waaye defuñu kenn dara ko sëñ Mahamadan sëñ bi nee na mi ngi leen sant bu baax ci taxawaay bii nga xam ne taxaw ngeen ko ngir liggéey sëñ Tuubaa bi damay wax ne liggéey bi de wax naa ko bi léegi ci bëccëg dama ne ko fii ku fi ñëw soo bëggee ak soo bëggu saaj dana faju ak sëñ Tuubaa tey soo bëggee sa aaj dana faju soo bëggu saaj dana faju barke sëñ Tuubaa maa wax ku ñëw te bëgg hmm. sa ay dana faju soo bëgg sa ay dana faju ndax kii ku sa ay nar fay dañoo ci liggéey Sëñ Tuubaa bi te mag ñi fi nekkoon kat lii dong lañ mos a bëgg dañ ne woon siiw Sëñ Tuubaa ko ci seen muy dem ci ñoom ñooñu laa la wax bàyyiwuma ci menn mag nag danaan siiw sëñ bi def loo ko dara la ñuy bëgg rek loo leen seen ñu daw xel yaag lépp bëgg sëñ bi def loo leen dara rek waawaay ñun nag bu ñu seen bi def loo dara san nañ yàlla te sëñ moo xalis daana wax ne ku bëggut du wut ku ku wutu doo am ñun na bëgg nañ danañ wut danañ am kon mboolem tundu Tayba wa mboolem tundu Mbakol wa ñoom ta ñëw ta nga xam ne am na ay lampañ wala ay gaar yu leen gaar bu mënuñoo ñëw ci barkeb sëñ Touba yàlla na yàlla dëgg seen seen dikk gii ngeen dikk fajaale ajo ñooñu ndax yàlla moom mën na ko yàlla mën na loolu de yàlla mën na loolu na ko def kon noo leen bu baax gone dana waxtaan ci yen tuuti ndax mag ñii liggéeyal lañ Sëñ Tuubaa ba jeex ca takk ku leen defal danañ am ku leen defalut danañ am ndax ki am dara lañ booleeg seen dara mu def leen dara yéen ñi toll ci wut nag te amagu leen waaye waaye fexe leen bu leen ñii raw wut leen dara ku dara doo am dara de te yëf duñ ko may kenn ku yàlla bind dañ koy jaay rek Sëñ Tuubaa amul lu muy maye su ko doon may. Sëñ Abdou Lahad mii yaakaar la koy may te teewul daa futti ko woon rek du yàndal guddi du yàndal bëccëg du fanaanal ba agsi fi mu foofu seen dara nag ni ko daar daari ba daar dara di indi ko fa boo bëggee bokk ca dara ja da ngay daar dari na ngeen fas yéenee doon ay taalibe te sëñ Tuubaa fépp fépp foo seen seen sëñ Tuubaa taal fa taal bul xeeb taal ba de soo ca niituwut ci la dem ngay dee. te xew-xew yi am ci àdduna muy taax yeeg étage yeeg yëpp am na lu ko gën de mooy yaakaar sëñ Tuubaa te topp ko te topp nag kañ la booleel ndax sëñ bi du jaawale de foose see mu taaj fa am na ñu bëgg ñu sukk ca ku ko xeeb ba sukkoo ca nag da nga fande waaye waaye fexe leen ba fu leen yàlla booleel nekk leen fa rek su sëñ Tuubaa wootee wuyu leen rek bu leen laajee joxe leen loolu rek la murit war a def ndax murit boo seen muy dem la mu wax ba dem moo ko waxal boppam kenn waxloo wu ko joxe naa sama bopp ngay wax de adduna ak àllaaxira loo ma digal ma def ko loo ma tere ma ba ko ñu ne sëñ nga bañ dem war nga yaa ci génn de la nga waxoon mooy joxe naa sama bopp adduna ak àllaaxira rek nga waxoon ñu woole si adduna fii nag nga bañ dem bañ a wuuji kon yaa war asalaamaaleykum wa rahmatullah ginnaaw bu ñu santee suñu borom subhaanahu wa taala di julli Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam di sant Cheikhul Khadim nuyu suñu jàmbaar gi ci suñu ginnaaw di sëriñ Amsatu ñu gën koo xam al mashhur bi asadul xadim di jàmbaar joo xam ne te ni li yëpp mooy liggéeyal Serigne Touba moom mi ñu woo fii ci tool yu set tedd yi ngir ñu liggéeyal Serigne Touba ñoo ngi koy ñaanal bu baax suñu borom subhaanahu wa taala guddal fanaan lool te wéeral ay cëram ba mboolem naar yu am ci liggéeyal ko seexul xadim suñu borom defal ci lu kawe njortam te yàggal fi suñu kilifa gi suñu jàmbaar ji ki nga xam ne itam yëpp mooy liggéeyal Serigne Touba ki nga xam ne itam yëpp mooy loo xamante ne lu jëmee yoonu murid kanam mooy Serigne Sidi Mbacke moom Cheikh Abdoul Ahad ñoo ngi koy ñaana bu baax mboolem naal yoo xam ne am na ko ci liggéeyal Xaadimu Rasuul sun borom subhaanahu wa taala defal ko ci lu koy jot tam ànd ko yëpp ànd ko mboolem jullit yëpp sëriñ Amsatu ginnaaw bu ñu yëggaloo ci kàddu yi waaye nag al muridu man laa yemliku shay'an wala yemlikuhu shay'an murid moomu dara bu ndigal jugee waaye dara moomatu ko bu jugee ñoo ngi sàkku nga ñaanal ñu suñu jàmbaar gi di sëriñ Xaadim Diouf moom Seex Mouhamadou Diouf Lambaye suñu borom yàggal ko fi lool te ànd ko wér te ma ànd ko mboolem murid yi di xam ne moom kat yéenam yëpp mooy liggéeyal Serigne Touba yaare ko ci buntam Cheikh Cheikh Abdoul ndax kat bi mu doonee tutànk la ko Cheikh Mouhamadou Diouf Lambaye yëkkate jox ko Cheikh Abdoul Ahad mu nekk fa loolu la nga ca xam xamuñu ko ci ba tey jii mu tekk ak laxsaayam képp ko ko gis dina xam ne am murid la waaye képp ndax kër bi mu bokk kër bi mu am ci kër Serigne Abdoul Ahad mi ngi koy doxal toujours ñii di ak njabootam ñu ñu koy nàmpatal toujours kon boog ñoo ngi sàkk nga ñaanalal ko suñu borom guddal aw fanam lool wéral ay cëram te yàggal fi mboolem taalibe yi di ñaan ñaanal ñu mboolem waa kër Serigne Aliou Diouf Lambaye gépp nag bàyyi ñu kenn Serigne Abdoulaye Diouf barki biig fi la fi fanaan Serigne daa jàpp waaye fan yëpp ay ndawam ñoo ngi fi ak mboolem waa kër Serigne Aliou Diouf Lambaye gépp ñi nga ànd ak ñun liggéey bi mboolem ñi nga xam ne ñoo jóge Lambaye jiital Serigne Lamane Ndiaye mii ak Serigne Moussa Ndiaye mii ak sëñ mu Diouf mii di di di rakk ci sëriñ bi di di doom ci seex Cheikh Mouhamadul Bachir ak sëriñ Sidou Diouf ñoom ñëpp ak jëwriñ yëpp ñoo ngi ñaan ak sëñ Abdoul Ahad say jóge ca njeng ñëpp ñoo ngi ñaan leen suñu borom subhanahu wa taala defal leen tawféex te defal leen ak wér te defal leen ak mucc ba yéen a yi am ci liggéeyal ko Serigne Touba liggéeyal ko Serigne Aliou Diouf Lambaye suñu borom defal leen ci lu kawe seen joot ñun nag wax dëgg yàlla dañuy sant bu baax a baax ndax nit bu fekkee daw laa woo ci liggéeyal Serigne Touba yaa ko war a fay waaye waratu laa fay suñu maam nag dañoo jaayante woon ak Serigne Touba Serigne Aliou Diouf Lambaye ba muy dem ci Serigne Touba daf ko waxoon ko jaayante naa mel naa mel naa ni naa dootuma delloo ci sa kër mel naa ne xunxuneer di mel ci suukar ba muy dem ci sëñ Tuubaa dafa daf ko wax ne ko man kan maa ngi mel ne bant bu amutum lëm bant bu amutum lëm nag boo ko joxee law ba bu xarañ nu ko neex rek la koy yettee ñun nag ñoo ngi nii sa ci sa kanam suñ suñu alal du ko fekke suñu doole du ko fekke suñu yitte du ko fekke ñun jumtukaayu sëriñ Tuubaa lañ fu ñu toll liggéey sëriñ Tuubaa rek a ñu ñoo ngi sàkk nga ñaanal ñu sëriñ bii ñu yàgg nga ànd ak moom ci liggéeyal sëñ Tuubaa te am ci te te ànd ci ngërëmu gëmuñu ku du sëñ Tuubaa awuñu awuñu tànk kenn lu dul roy ci suñu maam sëñ Aliou Diouf Lambaye amul yéene lu dul liggéeyal sëñ Tuubaa jant bu ñu noppee liggéeyal sëñ Tuubaa yàlla bu ko suñu bakkan fekkee wasalaamaaleykum wa rahmatullah sëriñ am satu nag woote sëriñ Xaadim nii bokk ci jàmbaar yi nga xam ne suñu borom taw feexale na ko bàyyam yëkkati woon ko teg ko ci loxol sëñ Abdul Ahad loolu xéwal la sëñ Abdul Ahad yaral ko boppam ba muy xëy mu doonoon fa gone ba xëy di magum jëmm ñu waat ko kër baayam sëñ Abdou Lahad woote waat su àndeek mbooloo mi ñëw fii danaan leen fii ma leen andi xam naa ko ndax sama baay xam na ko sama maam xam na ko man mii xam naa ko ngeen wuy si wuy si woo xam ne nag jomam taxoon na mu ne sëñ am sa bu may ñëw bul ma fàggul dara lépp bàyyi rek ma jéem ko ca ñaanal ma nag bu ma bu ma tëlee bay ñëw ci yow waaye ku ne xam ne seen dal bii daaw ak daaw jéeg ak daawaati jéeg rana ko dàq fuuf te déwén na koy dàq kon sëñ am sa nee na ngi ñaan la seen maam seen maam yi kat a njëkk a joxe seeni i bakkan te ba joxe bakkan di jafe teñ tañoor taxaw ñu wan ko ne ko lii nga wax moom du dëgg la dëgg ma nga Tuuba boo doon jël suñu bakkan yi foofa nag àggagu leen fa te fa la seen maam yi toll woon kon suñu am sa nee mi ngi soññuwaat ñëpp ñu waajalaat déwén di ñaan bu ñëwee déwén yàlla ñu fekkaat sëriñ Sidi yàlla bayaat lu ëpp lim bay yàlla gën a nangu ran yàlla yàlla doon li wér gi ba bu dikkee ñu gën koo jekku kenn ku nekk boo ma jógee fii lay sa yitte mooy bu may dellusiwaat li sëñ xaadim bëgg lépp naa ko def na ko suñu borom def ci poos yi ci barkeb sëriñ Touba di sàkku nag ngeen ñaanal sëñ Amsatu kenn ku ne yaa ko koy tàllal sa loxo naa ko ñaanal ma waaw nañ ko ñaanal mu yàgg fi moom ñu koy jàppale moo ñu koy jàppale ak kilifaam gii ndax ku la bëgg a dimbale sëñ Touba noonu na woon sëñ Issa Dieng bu leen dig taalibe yi lu ngeen amut. mu ne ko bàkke boo ñu ko firi leen ñu jël mu ne bëgg leen a jariñ te du ngeen leen liggéeyloo yoon wi ku liggéeyu doo ci jariñu waq di xawaa ijal lazina daamoo la wax yow yàlla nag ma fajal aajo ñi la liggéeyal illa lazina saarahoo fii xidmati it la wax boo bu ëllëgee ñooy tàbbi àjjana la doon ñi may liggéeyal kon ku bëgg sa aajo faju ci àdduna da ngay liggéeyal sëñ Tuubaa bi nee na daa am jenn kàddu gu mu bëgg a leeral rek ci ci ci sëñ Aliou rek. sëriñ bi nee na daa bëgg a seede ak kad ak kaddu ci làmbaay ak sëñ Aliou Diouf. wala sëñ diggante nag sëñ Mat Diouf ak sëñ Ablaat. day lu yàgg. nee na day lu yàgg. ndax euh, li nga doon junj léegi ci sëñ Sidi. ndax li ma doon junj léegi ci sëñ Sidi. ba muy gënee àdduna. ba muy daa fekkoon mu ànd ak sëñ Modou Diouf sëñ Sidi ànd ak euh, sëñ Abdou Lahad ànd ak sëñ Modou Diouf. daa fekk booba sëñ Abdou Lahad ànd ak sëñ Modou Diouf. ñu def tournée bu yàgg. ñu def tournée bu yàgg. ba ñibbisi. ba ñibbisi. bi ñëwee ñu ko soxna si am na gan. ba ñëwee ñu ne ko soxna si am na mu ne sëñ Modou Diouf kon nañ jógaat. mu ne sëñ Modou kon nañ jógaat. kon xam nga ànd yàgg kon xam ngeen ne booba ànd yàgg na. di ko ñaareel. di ko ñaareel. sëñ sëñ sëñ Abdou Lahad. bi sëñ Moudou Moustapha di wàcc liggéey. bi sëriñ Moudou Moustapha di ab liggéey. kër maam yi la yendu kër maamam moom sëñ xaadim mii fa la yendu muy sëñ Aliou Diouf muy waaye booba waaye booba am na leetar bu ñëw am na leetar bu ñëw bu jógee di jégle télégramme moo amul booba booba télégramme moo am ñu xam ne ci sëñ Moudou Moussa daa wàcc liggéey ñu xam ne ci ne sëñ Moudou Moussa daa wàcc ab liggéey te xam ne bu ko sëñ Abdoulaye yégee ngan gi dina yàqu ngan gi yàqu ñu di ko ko nëbbu leetar bi sëñ bi def ko ci poosam. leetar bi sëñ bi def ko ci def ko ci poosam. waaye biñ toogee ba ci yàgg. waaye biñ toogee ba ci poosub sëñ ba. génn leetar ba. génn ko jàngee ba ne laa ilaha la ngan nga tas ñu xam ne sëñ bi yëg. la xam la ngan nga tas ñu xam ne nee na loolu moo ko booleeg Xaadim. kon ñoo ngi ñaan barke sëñ Touba. barke Seexul Xadim barke sëñ Aliou Diouf Lambaye barke sëñ Aliou Diouf Lambaye njabootam gii mu jaboote ñëw wuy si la njabootam gii mu jaboote te ñëw wuy si la ak ña bëggoon a ñëw te amuñu te mën ñu am am am am teq-teq ñëwuñu ak ña bëggoon a ñëw ci am am teq-teq ñëwuñu ci barke liggéey bii ci barke liggéey bii nga xam ne ku ci sax nga xam ne ku ci sax sëñ Touba moo moo warloo sa paju aajo sëñ Touba moo warlu sa paju aajo warloo sàkku am ko warlu loo sàkku am ko yàlla ñëpp dajeeg moom yàlla ñëpp ci barke sëñ nangu leen ñaan amin wakana Ibrahima Fall gi ñoo ne woon kenn des waaye ku ne xam na ne Serigne Cheikh Oumy moom Cheikh Mahamadul Fadal Mbakke moom day daa wax ne sëñ Falloo ko jur waaye sëñ Abdou Lahad la miin léppam sëñ Abdou Lahad la mu ne sëñ Amsatu du ma yónni kenn may ñëwal sama bopp def sama dal ànd koog yow ba liggéey bi jeex waaye ba muy ñëw sëriñ bi xam ngeen ne ab otoom def na soog doomam ne ci. waaye yàqalu ko dëpput daa kon ne wéy ci liggéey bi ñooñee seen gaañu gaañu yi yàlla nekk ay médaille ci Serigne Touba Xaadimu Rasuul mbooloo mépp ñëw àndandoo nii toog Serigne Amsatou ngi nii toog Serigne Abdou Samad borom atu murid moom Serigne Souhaïbou ku ne xam ngeen ne dégg ngeen déclaration bi mu def yabal fi ak njabootam Serigne Mohamed moo ànd ak taalibe yëpp ñu ñëw ànd ak Serigne bi ci liggéey bi Serigne Sidi moom Cheikh Abdoul Khadir Serigne Amsatou daa ne. woote bi nag moom doomi sëñ Touba yëpp laa woo seeni i buntu kër waaye ñaar nag dama leen cee bàyyi xel kër sëñ du xaadir ak kër sëriñ fallu ndax koo xamul noo koy def nam la defa tax te ñoom niñ ma def leer na leer na àdduna bépp loolu moo tax ñu ngi nii toog ànd ko nag ak njabootu maam Cheikh ma Fall gi ànd ko ak seexi Serigne Touba yi kenn desut Serigne fallu Fall moom sëñ Aliou Fall Mbawor ma nga nee toog Serigne Mourtala fal Serigne Ngunda Fall Serigne Fall Fall moom sëñ Abdou Yacine di seen ñoom ñëpp ñu ngi nii àndandoo kenn desul ñu ñëw ci liggéey bi fas ko yéene ànd ak Serigne bi. seexi sëriñ Touba yi benn seex bu jébbalu desoo ci ñëpp a ñëw Serigne bi kon liggéey baa ngi nii noppi na. Serigne bi liggéey baa ngi nii noppina na waaye daa am ku ci am kaddu waaye bi muy ñëw mu am lu mu wax muy monsieur le maire Abdoulaye Ka daa wax ne man awma ci kàddu ndax liggéey bi sëriñ Sidi sëñ Amsatu la koy liggéeyloo te sëñ Sidi mennum sëñ Amsatu la doon déglu kon liggéey bi noppi na ku sëñ Amsatu bu waxee kàddoom wala ku mu waxloo kàddoom loolu moo fi li andi woon mbooloo mi waaye sëriñ bi war ngaa sant yàlla bu baax a baax a baax ndax lii fi dajale doomu aadama yi jikko la dañoo wax sëriñ Touba teraangaam ji daj na àdduna bi daj ñëpp waaye boo mënee woolo gor yëpp bàyyi seeni soxla. bàyyi seen i yitte ñëw ànd ak yow ci naaj wi te kenn ku ci nekk mën mënoo àgg fa ab dalam na nga xam ne jikko la nga ànd doomu aadama yi kon yoon waa ngi nii sëñ Bay Jaxate waxoon na ko sa baay ne ko am nga yóbbal fëxal waaye yow miit am nga yóbbal ndax koo xam ne sa baay daa taxaw wax ne sëriñ Touba la wax ne ko jébbal naa jox naa la bis naka tey sama bopp ak sama lépp ci lu dut ak dog na ko sëñ Fallou waxee woon jaayante na ak Serigne Touba jox ko sama alal sama bakkan sama njaboot sama yëngatu ak sama dal te noonu la ko sëñ Touba defee woon ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kon yoon wi du yoonu pexe du yoonu tappale yoonu jëf la mbooleem ñi fi am ngërëmul yàlla danoo jëf ku jëfut doo am dara sëriñ Touba mënut a jariñ koo jëfalul dara kon nag Serigne bi noo ngi nii di jaami Serigne Touba di ay jaam jaamaat ñi fi ñëw ñëpp aajo lañ yor ñu bëgg mu fajo te yërmande Serigne Touba ji képp leen fi andi yërmande joojee nag nañ dajeeg moom kon kaddu gaa ngi nii bokk yëpp daje nañ. Serigne Cheikh Oumy mooy kilifa jotaay bi. Serigne Amsatou nee na moom du dindi lu yàlla def Serigne Cheikh Oumy mooy kilifa jotaay bi. mooy ñëpp. nee na ñun ñëpp mooy kilifa. nag dafa mel ni. moom nag dafa mel ni. sëriñ Abdou mii la jox ndigal. sëriñ Abdou Samad moom sëriñ Sohaybu moom la jox ndigal. mu soññi mu soññi taalibe yi. mu soññi taalibe yi. kon man aw ma lu ma ciy wax. nee na kon moom amut lu mu ciy wax. damaa wax nit ñett rek la nee na da daan wax ne nit ñett rek la am. boppam. boppam. bokkam. bokkam ak jëfam. ak jëfam. ku man mënal sey bokk. ku man mënal sey bokk. boo tëlee ku man mënal sa bopp. ku man mënal sa bopp. soo tëlee say bokk mënal la. soo tëlee say bokk mënal la. soo dee sa jëf mënal la. soo dee sa jëf mënal la. kon lii. kon lii. sant naa ci yàlla bu baax. sëñ Amsatu nee na sant na ci yàlla bu baax. ndax kenn nit du mat. ndax kenn nit du mat. waaye su la yàlla bëggee matal. waaye su la yàlla bëggee matal. da lay booleeg ñett. da lay loo koo xam ne. koo xam ne. loo xamul mu xamal la ko. loo xamut mu xamal la ko. loo mënul mënal la ko. loo mënut mu mënal la ko. loo amul amal la ko. loo amut mu amal la ko. loolu nag sant naa ci nee na loolu nag sant na ci yàlla bu baax. boole na maa rakk ju baax. boole na maa rakk ju baax. ak mag yu baax. ak mag yu baax. yoo xam ne lu ma mën. loo xam ne lu ma mën. loo mënul lu ma mënut. ñu mënal ma ko ñu mënal ma ko. sëñ sëñ bii moom wuutu ci wax ji. sëñ Cheikh Oumy mii moo ko wuutu ci wax ji de. wuutu itam ci jëf ji sëñ Abdou Lakaram mii. sëñ Abdou Lakaram moo ma wuutu ci jaf ji. ndax mooy jëwriñu tool bi. ndax mooy jëwriñu tool bi. xam-xam bi sëriñ Sidi wut na ma ci lu bari. xam-xam bi sëriñ Sidi wootu na ma ci lu bari. ndax moo ne ca jumaa ja. ndax moo ne di xamle sëriñ bi. sëriñ bi. di wax li sëriñ bi bëgg. ñëpp di ko dégg. kon kon moom amut lu muy wax. amut lu may sant. jox kaddu gi. seex umee ko moom. seex umee ko moom. te jox na ko sëñ bi. te jox na ko sëñ bi. nee na lim ciy seere rek moom sëñ seex umee. mooy sëñ Abdou Lakaram mii. man de na ma. de soññ nga ko de. ndax dafa ànd ak am mbooloo. nee na da ngaa ànd ak mbooloo. ñu teewe ko daaw. ñu teewe ko daaw. teewe ko ren. teewe ko ren. waaye ku jara la di sëñ bi. waaye sëriñ bi nee na sëñ Abdou Karam ku jara fonk la. nit bu nekkee cib ci ci gox. nee na nit bu nekkee ci ak dox. ñu nangule ko nii. ñu nangule ko nii. as gor la ab jullit la ku baax. nee na as a ngi nii ab jullit ku baax a ngi nii. ajjuma la fi nekk ak moom ba léegi. nee na ajjuma la fi nekkoon ak moom. ba léegi. ba léegi. waaye. waaye ñim àndal. ñim àndal pas-pas bi ñu am. pas-pas bi ñu am. la la tax ñu am ko. la tax ñu am ko. jikkooma jikkooma ma seereel la sa doomi bopp yii sëriñ tu moom sëriñ naa moom sëriñ Abdou Lahad liggéey bi bañ ko tàmbalee ba fi ne lépp lu jëm ci wàllu waañ wa wàllu oto ya lépp ci loxoom ne ko sëriñ Amsatu teg waaye dana ko jaral mu dagg biyee Italie ñëw ba liggéey bi jeex mu delluwaat na aw ma lenn jënd yitte. ju weesu lii ma señ bii def loo te man moom la ma sama baay joxoñ kon mooy sama sëriñ Touba sëriñ bii barki démb ma nga France liggéey bee ko dara dagg bi boo ak sëriñ am satu nday ak baay sëriñ Abdou Lahad di léppam bu ñëwee jawal si directement ne bu ma wàccee sultaan dafa wax ne sëñ bi nee na sëñ Abdou Samane nee na bu wàccee 3 heures aéroport tool yi lay jawal si bu fekkee mu nar a jeex kon bu ñëwee seriñ Cheikh Oumy ne ko kaddu gaa ngi nii Mbacke bala yeyoo nga ko kon bàyyi kenn. sëriñ bi daa wax ne kàddu cant gi mënee suta lim ñi fi nekk ñëpp tey bàyyi kenn. bu ñu demee ba dallu. bu ñu demee ba dallu. kenn ku ne xam nañ fa nga ne. kenn ko ne xam nañ fa nga ne. ak ña ñëwoon. ak ña ñëwoon. danañ jot suñu cant. danañ leen jottali suñu cant. cant gi sax soxla wu leen ko. cant gi sax xam na ne soxla wu leen ko. dañ leen a woon ci sëñ Touba. dañ leen a woowoon ci sëñ Touba. dañ leen a woo ngeen wuy si ci sëñ Touba. dañ leen a woo ci sëñ ngeen wuy si ci sëñ Touba. mu liggéey loolu jox leen liggéeyub sëñ Touba ñu jox leen liggéeyub sëñ Touba ngeen liggéey ngeen liggéeyal sëñ Touba kon yéen sëñ Touba yor seenu pay may lim seeni tur amu ci njariñ may lim seeni tur amu ci njariñ leen fi woon li leen fi andi woon wóor ne am ngeen ko te wóor ne am ngeen ko moo am solo moo am solo wasalaam asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu maa ngi leen di nuyu ci tur sëriñ Xamsatu sëriñ Xamsatu nee na mi ngi leen di nuyu ci turu kilifaam sëriñ Sidi ak ci turu jëwriñu seexul xadim ci kaw suuf ak seex Muhammadul mu di leen jottil ay cant ak i ngërëm jiital ci cant yooyu nag bokki boppam yi di këri seexul xadim yépp genn kër desut kenn ku ne ñëw nga fi yable nga fi ànd nga moom ci bis bi ba woon ko bis bi ñoo ko bokk liggéey bi ñoo ko ànd xëy na nag mbooloo mu ne rek dana am ñu ci doon jëwriñ ñoo xam ne boo santee ñëpp it dañ leen beral seen cantuk bopp tàmbalee ko ca njëlbeen ga ba nag ni sëriñ Abibu moom Cheikh Mouhamadul Fadil ak sëriñ Sidi moo Cheikh Abdoul Khadir nii mu ko waxee waaye nag sëriñ Cheikh mii nga xam ne moom doomi Cheikh Abdoul Ahad la. ci wet yëpp ndax sëñ Abdou rek ko saf moom lay roy moom la bëgg te loolu da koy wane waxtu wu ne di ko jëfee di ko waxee kon nag am sa na nanga sant yàlla bu baax wéetoo nit mën naa mbooloo mu baree bari ba noppi wéet waaye nag sa mbooloo mii ñëpp a ngi ci biir bokk yaa ngi ci seex yaa ngi ci taalibe Sëñ Tuubaa yaa ngi ci kon nag loolu mooy wane ne loo ne ànd nga ci ak bokk yëpp yëpp yëpp doo kenn ku ne ci yoon wi koo xam ne boo waxee ñee gàntu ñee nangu déedéet yow loo ne ànd nga ci ak sa bokk yëpp loolu na leer tey jii tey du lu ñuy wax lu ñuy jëf la bis bi wane na ko taalibe yëpp a ngi fi bokk yi yëpp a ngi fi kon nii ñu ànd ak ci liggéey bii ni lañ ànd ak ci leneen lu mën a doon di jiital ci cant gi nag sëriñ Abdul Akram mi nga xam ne mënumaa ñàkk a tudd aw turam ndax li ko waral lii ñu ci am ñëpp ci war a sant waaye ñun waa kër sëriñ Souhaïbou ñoo ci war a ëpp cant ndax moom ba muy am juróom-ñaari at la ko sëriñ Abdoul Ahad jox sëriñ Souhaïbou fa la yaroo nit nag kenn gënu caa mën a wax seere ku dul kam bokkal yaroondoo man yàlla dafa def mu tellement bëgg tellement taq daanaka sama kër la dëkkoon bu jàngee ba noppi li ci ëpp moog sëñ Bass Abdoul Khadir ak ñeneen ñi waaye moo ci gënoon ràññeeku waaye maa ngi seere ne nii mu gone woon ni la mage fa tabarakallahu yàlla bu ko cat dab yàlla bu mu ko lor ku koy ñaanal na ko ñaanal yàgg fi ak mucc waaye maa ngi xamle ne mës a teggi tànkam bii fa sëñ bëgg ab sëtam teg fa ab tànkam ci jub xocc néewi wax bari pëstéef ñemeb coono bëgg sëñ Tuubaa laa xamoon ci moom kero bañ ko fa andee ba nii mu fa jógee ñëw belal ci loxol sëñ Sidi kilifaam yàlla dafa def sax mënumaa wax ci moom lu bari ndax miin gi ma miin waajuram tax na kàddoom sax bu ma ko déggee daf ma yóbbu fu sari ba jataay moom lu yàgg sax mënu ma ko ndax damay indi damay indi lu bëree bëri di ma fàttali lu bëri sëñ Abdou waaye daal sëriñ bi eh, cant mbooloo mépp mën nañ dañ koy teg ci sa loxo ndax yaay jëwriñ ji mbooloo mi nga nag. yàlla na leen sëñ Tuubaa beral loxo ba kenn ku ne ci ñoom yéeg ne sëñ defal na la loo xam ne sa ndey ak sa baay mënalu la ko mënaloo ko sa bopp ci daraje sëñ ndax yow taxawaay ba sëñ Abdou Lahad taxawoon da nga koo taxawee dafa toog fii ci sama kanam boobu maa ngi ci kër ga muy ak màggal mu wax ne ñett ñu bokk ndey ak baay kii ñuul kii xees kii xeereer nga bëgg a tam kii ne kii dañ koy nangam kenn nga seetal ko mënta ne. dëgg la nee mooy murit tijaan xaadir loolee nag dang nga koo dégg dund ko ba tax yow da ngaa tàllal sa loxo li sëñ Tuubaa ne wax ne yaa maalikal mulki yaa man jalla an xawadin irham jamia al wara xut ummatal Mustafa an kulli mafsadatin wal tarhamil xalqa yaa man jaddahum badaa foofee nga tàllal sa loxo yow tàllal loxo jullit yépp ndax sëñ Tuubaa li mu wax mooy njariñ yëpp mi ngi ko teg ci ku ma sopp <coughs> te te bokk ci moom nag bokk ci moom nag taw féexi nit ki waaye du njàmbaar ku ko amin nga xam ne yàllaa la tànn boole la ci waaye dug njàmbaar du ay pexe ñàkk caa bokkit dug yafus kon ña ca bokkut taxul ñu bon kon ku ci bokkut te bëgg sëñ Tuubaa yi la sëñ bi séddale da am xam gi nga xam loolu nag moo tax nga tàllal sa loxo ñi ci bokkut te bëgg sëñ bi ña ko umpale nag yàlla ci seen lépp soxlu ñeen sax wax waaye ñi bëgg sëñ Tuubaa daal fuñ mën a ne ak fuñ mën a bokk tàllal nga leen loxo te ñoo ci njabootu sëñ Tuubaa lañ bokk sëñ Tuubaa dafa yaatal njabootam gépp ci jullit yëpp kon nag loolu maa ngi lay ci beral loxo bu baax a baax ñun daal ñun ñun ñii say mag dañ lay sagoo di la bége di la bége di ñaan nag ci dara ji Sëñ Tuubaa yàlla kàttanal la wéral la ba nga yàgg fi topp sa mag ji ni ko war a toppee waaye lii itam kamaa tuddiinu tuddaanu rek kenn ku ne nii mu nii nii mu nii nii mu toppee Sëñ Sidi ni lañ ko ni la ko yàlla fayee nga toppee ko nii Sëñ Sidi it nii nga ko toppee am Amsatu noonu lañ ko fayee nam toppee woon waajuram bi ndax sëriñ sëriñ Abdoul Ahad da koo teel a jox sëñ Saliou eh, ne ko sa lépp ci sëñ Saliou la mas mës sa boole sëñ Saliou ak dara it lii ñu koy defal da ko daa defal sëñ Saliou moo tax ñu di ko defal te noonee ma ko doon defal sëñ Saliou bu bayee génne asaka teg ne la ca des lépp noonu la koy fabe jox sëñ Saliou du laal dara waaye ba mu gisatu sëñ Saliou it ku fi nekkal sëñ Tuubaa noonu la la koy defee ba ci Seex Mamadu Muntaxa mi dugub ji dugub ji ak gerte gi bu kenn yéem bu kenn defe ne kii ñu koy bayal da koy def ci compte bëggut ku ko wax bëggut kenn yëg ko ndax moom nit la koo xam ne li muy def yàlla rek a tax waaye danaa seereel ñi nga xam ne nag mën nañoo ne ci àll ba di xool ñu am lu ñu bàyyi xel sëñ si du lekk mbayam du ci mos dara buñ bayee ba nag bu mu génnee asakaam bu dee dugub ji lu lu mu néew néew junney bërigu dana ko yëg sëñ Muntaxa mi te daana ko yëg ku fi nekkal sëñ Tuubaa daana lu ko yëg la ca des buntu këri sëñ Tuubaa yi benn wu des da koy séddale kenn ku ne ku sëñ Tuubaa di sa waay jur waay jur góor da nga ku sëñ Tuubaa jur sa waajur jigéen da nga amub cër noonu la toppee ba mu jeex tàkk mu dem jënd lu mu dunde kuy jëfee noonu yi nag war nañ laa mën a defal lu mel ni ndax yeyoo nga kon nag moom topp ñu ko ngir jox ko dara mu di ko lekk wala mu di ko denc dañ koy jox ngir mu yóbbu ko ci sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa tasaariwaat ko ci mbooloo yi mboole yi jëriñoo ko loolu rek rek rek rek la fi sëñ bi nekke kon kooku liggéeyal ko liggéeyal lislaam la kon ñoo ngi koy séeral ñëpp di sant nag seex yëpp bu ma tuddee kii bàyyi kii dana am nu mu demee waaye buñ demee ba ci yewi ko sëñ bi dana ko leeral waaye nag yoonu murid nag xanaa danañ may nag boo nee Cheikh Ibrahima rek mel na dugal nga seex yëpp kon as Cheikh Ibrahima Fall njabootam gépp yóbbaale nañ njabootu maam Cheikh Ibrahima Sarr yóbbaale nañ maam Adama Guèye yóbbaale nañ Cheikh Ibrahima Sarr Cheikh Ahmadou Diop almashari yóbbaale nañ sëñ Massamba Diop yóbbaale nañ képp sëñ Mat Diop Paxa ak mbo sëñ Aliou Diouf Lambaye ñëpp sëñ Issa Dieng ak kuñ tudd kuñ tudd rek Cheikh Ibrahima yóbbaale na la kon ñu ngi sant ñëpp di leen xamal ne nag di leen xamal ne nag sëñ Touba mi ngeen doon liggéeyal dafa ñemewut bor dafa am pay kenn ku ne na nga seet sa bopp pas-pas bi nga ñëwee fii ba keroog ngay dellu feeg déwén da nga yëg bu wér a wér mu la jariñ loo xam ne sëñ Tuubaa la ko defal te bokkut ak lam lay fay ëllëg ndax rus naa fay nit fii ci àddina lam waxoon borom Daarul Muxti ne ko loo gis ci àddina loo gis àddina dafa mel ne ndab luñ doon duy ba muy tuuru la cay tuuru moom ma gis cerno waaye man jomb naa rus naa di fay nit ngir àddina yéen itam na ngeen xam ne xéewal gu ngeen gis tuuti la ci leen sëñ Tuubaa dafay ëllëg waaye day wéy di wéy ba àjjana wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Euh, jërëjëf El Hadj Fallou Sylla jërëjëf euh, Serigne Fallou Sow jërëjëf euh, Serigne Mouhamadou Moustapha Niass jërëjëf bokk yëpp yi nga xam ne ñoo ñu doon jàppale ci wàllu liggéey bi bokk yi dégg ngeen kaddu yi bàyyi ko ci kilifa yi dégg ngeen kaddu yi bàyyi ko ci Serigne Amsatou Ibnu Cheikh Abdoul Ahad Mbacké dégg ngeen ñaan yu am solo yi nga xamante ne bii ñaan nañ ko kon ñoo ngi ñaan ci darajey yi Abdoul Ahad di ñaan ci darajey Serigne Touba Khadimou Rasoul mi ñu doon liggéeyal ñaan ci darajey sëñ Sidi mi moom liggéey bi darajey sëriñ Amsatu mi nga xam ne moo woote liggéey bi yal na yàlla faj aajoy jullit yëpp yal na yàlla faj aajoy taalibe yëpp ñi ñëw ak ñi bëggoon a ñëw ñoom ñëpp yal na yàlla boole faj seen aajoy àdduna ak jooj alaxira mu doon seen mbokk taalibe Fallou Gala Sill fii ci tooli Daaru Salaam bokki barga wasalaamu aleykum wa rahmatullahi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 سفي بقاء بهم لي فيك يا الله يا من له الأمر يا من لا شريك